Très bien, donc euh, vacances scolaires, euh, quelles sont les bonnes choses à apprendre, Fatima mhm. euh, Chaque moment est crucial, comme le ñuy wax à chaque fois rek boo un temps nek ak sa il faut que nga jël temps au moins nga jàngal ko si mhm. dara d'autant plus que nous, ngi ci année vacances scolaires Am, nga le plus souvent xale yi bu fekkee ne ne amuñu lu ñuy def dañuy soit dañuy taxawaalu bu ñu taxawaaluwee dañuy dem uti ay xarit buñu démé demee ay xarit mën nañu détourné wu si mhm. bon chemin bi donc parents yi loolu dañ cee wara a xel bu baakha ba amna affaire yu bëri lo mën jangal sa dom surtout si comportement yu baax par exemple ku jigéen ki comportement li nga koy jàngal amaana na mën na bañ a bokk ak ku góor mhm. par exemple ku jigéen ñun xam nañu ne fii la femme sénégalaise nu mu mel déjà da nga war a jàng togg euh, da nga war a nekk suba jigéen mhm. war a gérer sa biir kër mhm. te am na loo xamante ne comment entretenir une maison voilà te am na loo xamante ne bu fekkee ne xamoo ko màggaale woo ko boo demee nag ba war a nag commencer di gérer forcément da ngay am problème par exemple man dégg naa sama benn copine mu ne ma moom à l'âge de dix dix commencé woon na di teg cin mhm. tey boo defoon ay tuuru kër yu bëri amaana na doo gis yenn yaay yi di jàngal seen doom heure boobu moom nga bëgg Anna Ndiaye Thiam moom mu togg <laughs> xaw ma de waaye daal <laughs> xam naa ne daal ñu bëri mm. ñu bëri jamono ji bu fekkee dañoo am problème pour mu togg mm. seen biir kër loolu boo xoolee ci racine bala loolu moom moo ko waxal mm-hmm. xam nga yow bu fekkee da ngay togg vacances scolaires jot na sa doom bu jigéen même bu fekkee ne sept ans la am huit ans woo ko am na lu bëri loo xamante ne war na loo ko mën a war nga ko war a mën a jox mm-hmm. def ko lu ci mel ne ay witti bisaab parce que c'est juste que rek pour mu jël goût ci lu jëm ci toggoo wala muy tànn ceeb mm-hmm. wala par exemple hmm? wala muy raxas ndab yi tout ça parce que bu koy def ah, ba pare daf koy daf koy occupé daf koy occupé ba pare muy yëngalaale yaramam mais aussi lu jëm ci mbirum ménage wala par exemple bu yeewoo tak nga ne ko boo yeewoo yow chaque fois am na daal lu mu war a def muy bale wala kaas yi ndékki bi moom moo koy teg mhm. donc bu ñu jàppee trop xale xale la il faut que ci biir kër gi nga koy jàngal li nga xamante ne moom mooy ménage ba sax ba ci fóot mm-hmm. ba ci fóot mm-hmm. parce que en général dëgg la man mii sax dama koy faral di wax fóot dafa métti boo xoolee ba ci biir doole la laaj dafa waroon nekk liggéeyu góor que <laughs> liggéeyu jigéen tellement que dafa dafa métti mm-hmm. mais c'est important même bu fekkee ne ñaari yërem euh, wala chaque samedi da nga koy euh, buub ay yëre mu toog di ko fóot loolu noonu c'est important euh, bu fekkee ne ne ku góor ki bu ñu waxee euh, ANESCO vacances scolaires ñu wax ne ne euh, xale yi dañ leen war a jàngal liggéey ñu bëri seen xel ci góor ci jigéen ñi lay dem. Hmm. en général dañuy fàtte góor ñi nañu dem football yi nañu dem hmm. foo yi. or que góor tamit dafa war a am ay bon comportement kenn xamul ëllëg mën na tukki te xam nañu ne boo demee à l'étranger fii nii possibilité yi nga am. Hmm. pour dem xam na ci dara. voilà pour euh, ut bon ça. doo ko am yow yaay fóotal sa bopp yow yaay toggal sa bopp. yaay def ménage donc c'est important xale bi nga ne ko wo lalal lal bi ba mu set réflexe lay lay nek lalal lal bi ba mu set douche bi boo leen utiliser ba paré pompe leen donc il y a tout ça li nga xamantene parents yi war nañ ko mën a inculquer ci xalé yi très bien mu nek lu am solo lo xamantene ne defe naa dinañ def ben tour de table ku nek rek ba mu des Ousmane parce que moom da koy xëcc di ko tiire yóbbu ko mboora te day compliqué euh c'est vrai que Alaaji Sala li muy wax ni euh, nek na lu am solo c'est vrai que nek nañu jeune aussi les les comme sa genre ngeen demoon ay àllum mew hein ah, def yenn yëf yeeg yoy mais du téré amna heure yo xamantene xam ngeen li nga xamantene mom mo len di xaar ñu euh, ku ci mel ni man dama ci sant les parents bu baax parce que euh, xol ñu ndax digeen nga wala ndax dang ko wara def wala waroo ko def man tan na ceeb ah ba euh, raxas naa douche euh, raxas naa ndab te defe naa ne ba tey sax léeg-léeg sax ma ma dugg ci yëf yooyu noonu xam nga euh, parce que dañ ma ci tàggat te biñ ma ciy tàggat maa ngi doon mer di wax yëfu jigéen yi ñu ma koy jàngal affaire yooyu ay lal ah, ay ranger sa armoire et tout mais loolu noonu c'est bien parce que bas âge la ko jàngalee day dem ba day nekk après ci yow du ñàkk moom mu am lenn loo xamante ne dinañu ko ci mun a euh, leeral wala dinañu ci mën a may parce que Fatima mu ngi wax wax na ba wax voyage. Hmm. donc qui parle voyage wax ne euh, wàllum sa bopp moom yaa koy yaa yaa sa bopp ah dégg naa boo supp ah, kànjee moom da nga fiy toj. ah non c'est clair. non hmm? non supp kànjee tout sauf le mbaxal quoi. <laughs> non mais franchement c'est important pas seulement góor hmm. euh, que c'est important que ñu parce que. ce Secours même, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, tout ça et tout. Y a ni petite sœur, ni violeux, Les civioles, tout c'est toi quoi. Omelette, il faut me dire omelette. Il faut que tu saches comment préparer tout ça et tout. Mais, mais c'est important, Mais mais ce qui est encore plus important, c'est que vacances, effectivement, pas seulement du Gentibirko, quoi, mais Khalebouko, ça veut dire qui comprennent. Pas, pas seulement pour sous le sous de universités ou le sous sous de Kobe, mais aussi pour

Calif. ah bon euh, Dans partager partages, li ñu li ñu li ñu déjà euh, c'est-à-dire c'est forgé l'enfant dès le bas âge c'est-à-dire psychologiquement c'est-à-dire qu'il ngi koy forgé c'est-à-dire qu'il maîtriser l'eau, c'est-à-dire euh, nervosité mais encore tamal, tàmmal il yaa tel. donc voilà quoi éducation là. Mm-hmm. donc nous avons, par exemple éducation environnement bi xale bi di évoluer là. donc su fait qu'un yaa est encore tàggat ci kër mm. ci ay liggéey ci ay ainsi de suite loolu je non seulement dina ko jëriñ parce que da koy soxla. mais beneen côté aussi euh, comme wax cest dina tax mu gën a jox valeur jigéen. que ce soit yaayam wala soxnaam affaire parce que dina xam ne la ñuy daj. dañ bi donc euh, loolu éducation la te si loolu la ñu war a war a góorgóorlu tamit quoi. Mm-hmm. Euh, ci éducation boobu noonu Pape loo xamante ne dafa am solo xëy na mën nañ ko dégg nii mais duñu comprendre contenu bi. Mm. parce que ñi lay jaay fonde ñu ngi lay jaayal oyof. ah toj xol bi ah jaay la ah parce que loolu laa ko sànni léegi te dana ñëw ne la jaay ma fukki dërëm nga jaay mu ne lu tuuti lii ngeen kii këram bi léeg-léeg sa gel bi ci kër bi ñëw waaw sa gel euh, pourtant dama ko dagg sax mais noonu la def sama gars dañ ma daan romb di dem di soirée ji ah. naa ma dañ koy dem wooyu ñëw wax ne yaa ngi jaay jaay fonde nga ne leen maa ngi koy xaar boobu sa bopp bi gënoon na ngan dégg te xam lii bopp waaw xam nga li sax mu am solo d'accord gis nga sa doom da ngay jitu ci moom laata ñu lay jiitu ci moom mm-hmm. loolu nga yàgg digle gis nga vacances bu jotee xale yi di dem géej dem fii ci taxawaalu ci marché yi fu mel ni syndicat yenn kii yi vagabondage bi ñuy jàng amul solo. xale yi yóbbu leen jëm jàngi alxuraan bu dee ay. doon yi caa def rek ci ay. bu fekkee beneen diine lañ nekk ñu xam seen diine. ah bon xam nga ñu xam seen diine. tu sais que man xamal ma tax fubalu ma. Mhm. dama mënoon fubal. dama dama amul sa pap may moon dara. xam nga may moon may moon tarfatal ay ni tarfatal ay ni mhm. fajar waa dégg li nga wax man bàcc faal la man sa papa nga man man bàcc laa koy wax sama sama sama rakku euh, sama rakku yaay après xam ne paa bi ma booboo laa lay wax après laay xam ne paa bi ma la <laughs> bëggoon ci man d'accord maanaam ma doon niteeloo pour ma nekk nit mhm. cinq heures du matin bu yeewoo dafa ma yee ma jóg ba dem jàkka ji ñu ànd dem jàkka su ma ñëwee ubbi naa suma kaamil alxuraan jàng mhm. ndékki bi maire bi su yeexee entre sept et sept bi dafa naan dama jàngi dëgg la du ma mhm. ma jox xaalis mhm. ma jàngi su ma wàccee midi lan laay def dafa amoon ay xar am ay ginaar damay dindi ngunu ginaar yi bale ba mu set wutu xar yi ma raxas mu xam nga diggante une heure deux heures xam nga añ bi pare nga pare añ boo pare li ngay def mooy julli tisbaar jàng tuuti sa leçon gont booy wàccee lan ngay gubali xar yi. Hmm. c'est-à-dire. Hmm, gubal hmm. gubi dem gubi. ñax yi gubi gubi gis nga xam ngeen gub ak gub a gub ma dem gubal xar yi. boo ñëwee. maanaam yow loolu ngay def di lundi au dimanche dimanche nga jël xar yi yóbbu leen sang ji leen. maag bas maanaam du la may benn temps yow benn temps bi nga am ci journée bi peut-être ay 15 minutes ci ngay daw dem benn petit cas koñ benn fure. toj match yi ñoo toog bu ñëwee sax ñu ne ko Ibou Ndiaye moo defee lii danaan kii ban jot la am ba war a mën a def loolu <laughs> c'est-à-dire loolu dama doon paa bi am na jour wallaahi lazim ma ne sama yaay est-ce que paa bi kii moom jur tellement paa bi dafa mu doon alak mm. mais après laa xam ni paa bi dafa am lu dugal ci man wallaahi tellement que paa bi li ngay wax li ngay wax nii dama ko comprendre de telle sorte que léegi léegi léegi Fatima li muy wax nii léegi li tax mu garaaw mooy xam nga moom waajuram bu góor la man sama nijaay léegi nii nii xam nga majeur vacciné taxaw ah bu ma gisee bu ma gisee waaju damay am lu may yëg sama yaram da ngay tiit sama yaram day vibrer tuuti après ma ne mais man lu may tiit nii man xam nga déedéet parce que war na ma loo xalaat ak loo xalaatu yow ma ne maa nga fas li ma mujj def booy tux cigarette ci bi ci bi bi <laughs> ay trois heures du matin ma tox rek di génn rek dajeeg moom ma ne oh, oh yàqu na dafa dugg ci douche bi rek génnaat ne ma ko doon tux ma ne ko mu ne ma kon xëñ na sax yaay day tux léegi <laughs> nga ne man la ma ne ma koy xool mu ne ma kaay ma ñëw fekk xoola maa ngi sañse sa dafa ma mayoon rek permission ma génnoon noonu rek ah. nga génn léegi ci sañse bi noonu nga profité waale ci non mu dugal ma ci chasse bi ci toilette bi noonu mu ne ma ubbi chasse bi ma ubbi chasse mu ne ma taxawal ak samay naay ak samay këjëg këjëg may tooy léegi xoola muy bàyyi may damay xepp mu may dàggale te gis ngeen loolu. <laughs> balaa kenn du la àtte ni nga man tax da nga doon yàkkamti vacanciers gis nga nag loolu balaa ngaa xam njariñ dóor di wàññeeku balaa ngaa xam njariñ bi tey ni nga nekkee nii borom kër. Ah, non sant naa ko yàlla. te gis nga chance am euh, tu sais que chance bi nga am say doom duñ ko am. parce que yow amoo jotu sax sylvain say doom. Mm-hmm. pour nga may leen chance yar bi ñu la yar. Mm-hmm. man sama doom yi

la xam lan responsabilité mm. surtout parce que bu ko màggaalee rek je pense que war naa mën ku ci mm. un euh, président papam gardien ba mu ngi euh, jaay et tout mm. un président de la république donc affaire bi que ne environnement bu vous êtes des riches et tout si réussir n'importe qui mën réussir il faut que ñu yareele ko et puis voilà mm-hmm. euh, xam nga candidat au baccalauréat waaw ñu leen di 150 000 candidats. voilà mm-hmm. Mm-hmm. ma ne bien euh, proposer euh, vidéo mm-hmm. téléspectateur très bien, mon euh, nekk bonus bi bonus bi pour souhaiter ñëpp une très bonne chance d'accord aywa back back back back back back aywa back back back back back back back back deuxième tour défi oral aywa back aywa back ñoo leen baccalauréat baccalauréat baccalauréat deuxième tour troisième tour avons une promotion la promotion Nous ndax ren ñu leen di surveiller sax dañ promotion baccalauréat baccalauréat baccalauréat deuxième tour. très bien plus de 150 000 candidats